ginnaaw ñaari at bi bi ñuy jotee suñu bopp tolloog 1962 président bi woon Léopold Sédar Senghor ak premier ministre Mamadou ja dañoo waroo ci ay gis-gis mu jur yaakaar bu tas si mim réew ak ñi ko topp sunu ay gëm-gëm loolu mooy wéy bëre suñu jone yàlla tey du lu bees sëriñ Alaaji Malick Sy waxoon na ci en 1962 ci téeréem bi ñuy wax Kifayatu Arrahibiin juge Kéba Mbaye Rabiyallahu taala anhu décembre 2005 assise nationale décembre 2008 ak mai 2009 président Macky Sall décembre 2011 CNRI décembre 2013 Serigne Mountakha Mbacké décembre 2018 ak Serigne Mountakha ak monseigneur Benjamin Ndiaye en mai 2018 waaye li ñuy jàpp. te tënk suñu suñu wax ci discours bi juge Kéba mbay lañ ko jële dafa ne woon ñu ngi si àdduna boo xam ne nit amatul gëm-gëm lu dul ci xaalis nguur doole ak place loolu mooy wéy te amul mujj lu dul yóbbuñu ci fitna tax na ba tey war nañoo moytu njuuj njaaj fen ak tappale topp lu dina digle muy dëgg jub ak yemale loolu mooy tax ñu loolu mooy tax am suñu réew bu ñu bëgg wante ak réew bu feebar bi ñuy dund du ci ay ay njiit yi nga xam ne nguuru rekk moo leen soob ak ñeneen ñi euh, ñeneen di fi jëme jéem a jële mu jur ngi askan wi bëgguñu nag ni yàcc seetaan suñu réew mu sooxee ci jamono bi pétrole ak gas feeñee ba tax na dinañu waxtaan ak yéen ci ñetti tomb yu mën a suqali suñu réew bi ci njëkk mooy mbay mi napp gi ak sàmm gi waaye ci mbay mi rekk lañuy wax mu yóbbaale yeneen ñaar yi bay dundee moo fi war a jóge ñu teg fi leneen lii ñoŋal ak jàppandi liggéeykat yi bi bi tax ñu jaaxle ay jum jumtuwaay tegaat leen ba loolu bañ du yàq donte ñu lekk lépp lu ñu bay loolu undu denc bu ñoom ak mën ko soppi ngir jaay ko ñaareeli poñ bi mooy tëgg jumtukaay yu ñuy may ñu liggéey fii lépp lu ñuy bay mbay mi napp gi càmm gi ak li ci biir suuf muy pétrole gaz ak mine ñetteeli tomb bi mooy koom bu ñuy defee loolu moo ko yombalal doomi réew mi ci banque bu ñuy taxawal mu leen di lebal xaalis ci ni mu gën a yombee waaye ci fay ba mu gën a ñoŋ si ñoom gis bu ni mel daf ñuy may ñun ñëpp ñu tëgg sénégalais bu bees jaarale ko ci dellawaat ci suñuy ngëm-ngëm ci diine aada cosaan ak lépp lu laïcité indi te waroowul ak lim fi fekk nit boobu mooy ki gëm boppam gëm réewam bu ñu tasati yaakaar doomi réew mi comme li fi jote weesu ci ñaari nguur yi fi mujje ba tax na soppi mujje woon nekk sàppi yoonu yokkute tàbbi ci yoonu yàqute ci li ma euh, soobuloo ci élection man yaakaar naa ne bi may ñëw ci armée vingt ans la am def def ci nag armée quarante ans mu yóbbu mu yóbbu ma soixante ans balaa may dem retraite patriotisme moo yóbbu nit ci armee benn doomu aadama rek lañuy gis gis Sénégal muy liggéey mën a liggéey ba ñu ne ko joxeel sa bakkan ngir sa réew mu def ko kooku soldaar la euh, loolu tax nag ma nekkoon ci armée def si nag sama waar bi loolu jeexee ma dem retraite en deux mille vingt 2022 yàggul quelque temps après j'ai rejoint Centre des hautes études de défense et de sécurité du Sénégal comme directeur des ressources humaines, de la coopération et de la communication. ci kaw loolu fekkoon na may tëgg benn mouvement bu ñuy wax RAC rassemblement pour l'éveil de la conscience citoyenne et le civisme mais élément déclencheur bi mooy euh, bi ñu jàpp Sonko. télé télévision Walfadjri woo ma laaj ma sama xam-xam xam-xam ci niñ ko jàppee ak lan la armée waroon def wala en tout cas police ak gendarmerie parce que du armée mooy jàppee ma yaakaar ne képp ku nekk ci centre étude de réflexion sa xam-xam li ñu soxla nit ñi loolu la ñuy taataan ci yow ma joxe ci sama xam-xam xëy na mu waroog ñoom lu ñu xalaatee waaye li ma wax muy dëgg parce que si ay texte laa ko teg semaine lañ ci teg ah ñu gàttal sama liggéey fi ma nekkoon muy chets bu ñu gàttalee sama liggéey ma continuer sama liggéey lancer sama mouvement di remercier ñëpp ñu topp sama ginnaaw ni man nag damay continuer jëriñ sama réew waaye dew ma élection de par sa générosité Moussa moo ma seet si ne ma man dañoo bëgg ànd ak yow pour nga jiite suñu alliance jëm ci élection moo ko koy sante ma ne ko man xalaatuma woon dem ci élection parce que élection diis na dañ ko préparer machine bu yàgg la te lii amagul trois mois mais ñun ku ñu xam xam armée dañu am ngëm-ngëm te suñu commencé ci jëm ci dara jëmuñu si pour perdre ñun dañuy dem pour gagner su ma ko mënoon di gagner damay naan du ci dem kon gëm naa ne mun nañ ci am dara mun nañ ko gagner parce que lépp lu ñu ci jublu nag mooy askan wi d'abord ñun wutuñ si dara askan wi moo ñu ñor taxoon ñu jaay suñu bakkan parce que nag def naa ko ay yooni yoon ci théâtre d'opération yi si Casamance terewul ñu ko ne suñu liggéey waaye loolu moo gën a sabab ñu dugg ci langue bi mais Moussa laa koy sante parce que moom may dugal ci langue bi waaw bi loo su weesoo sa deuxième question juge Keba Mbaye euh, model la donte ñu bëree wax nañ ci affaire sécurité mënoon ñu wax leneen mënoon nañ jël sax exemple président Macky Sall en 2011 yoonu yokkute c'était un des meilleurs programmes au Sénégal waaye yoonu yokkute dafa sooxe ci nuñ ko nuñ ko doxalee bëri na ñu ñu ñu yaakaar yoon lool ci ci yoonu yokkute boobu programme boobu te mu parce que li ko laloon dëgg-dëgg c'était les biens immatériels nañu defaraat suñu démocratie servir le peuple avant le servir la patrie avant le parti man duma protéger kenn muy wax yu diis ñëpp am ci yaakaar waaye yaakaar naa ne euh, du ñu nekk nihiliste ne defu fi dara mais au niveau des biens matériels foofu la yoonu yokkute sooxe fa la rêve yi brisé donc du mënoon naa c'était sax président Macky Sall donte man tey euh, li may wale leneen la mais euh, mënoon nañ ci citer également Sonko ci li mu bind ci solution parce que aussi am na lu mu ci bind yéene woon xëy na dox ci réew mi mais loolu également xëy na am na lu ko gàllankoor ba tax na sooy tout choix est difficile waaye Kéba Mbaye laa ci téye pourtant wax naa leen ne 1920 lañ njëkk wax ci crise de valeurs te El Hadj Malick Sy moo ci wax góor gu tedd gi wax ci biir kii faayu raxibiin Serigne Touba 1922 wax na ci waaw si euh, Masalikul Jinaan la crise des valeurs en 1922. 1922 ba léegi crise des valeurs boobu jógewul Sénégal wax mu dañ daf fi yomb fen daf fi yomb ñu nekk réew moo xam ne cent pour cent ay ay aji ngëm lañu en 1900 en 2013 recensement bi lan la joxe musulmans Sénégal on est 93 virgule 2 pour cent les chrétiens sont à 6 virgule 1 pour cent. mu nekk quatre-vingt-dix-neuf virgule trois pour cent zéro pour cent yi dañoo gëm mais lu ñu gëm mooy c'est les religions traditionnelles donc Sénégal cent pour cent li ñu ñëpp a gëm waaye li ñëpp gëm kenn doxalu ci dara loo xam ne dëppoo nag diine ku la wax war la ku la dig war la ñun bëgguñu nekk koo xam ne dañuy dig suñu peuple luñ ko duñ ko dul defal. mais nag ñun la Sénégal ñoo tàmm wax nitu nguur gi nitu nguur yi koo ne nitu nguur mu nguuru ñoom ñu pour nguur dañ fi nekk pour servir askan wi waxoon naa ko ci sama mouvement mooy génn mais mouvement bu léegi nekkatul alliance la ñuy wax tey waaye nitu nguur gi warutu ko terme boobu dañ ko war a bàyyi ñoom dañoo war a jaamu suñuy soxla oto yi ñuy dawal ñoo ko jënd essence bu ñu def ñoo leen ko jox téléphone yi ñu utilise ñoo leen ko jox ñu war a jàmm jaamu suñuy soxla mais pas ñun ñu nekk seen ay jaam di daw seen ginnaaw ñuy def ay achat conscience di def li réew mi naka nu leen neexee ba pare ñun ñu toog di seetaan. Euh, parrainage bi du lu ñu jaaxal lu ñuy tiital su fekkoon ne parrainage bi rek dañ ko tëggee fi ñu ko war a tëggee parrainage bi déjà CEDEAO def ko dàq waaye comme dem na si suñu Sénégal te ñun su réew mi amee ba ay loi ñu tëdd ko tënk ko respecté rek lañ ko mën def. Euh, parrainage bi lu ko aajo wax nee nañu quarante deux mille et quelque la ñuy war a am ay si ay euh, parrain sur quelle base lañ ko tëgg en tout cas ñi nekk ci kujje gi gisuñu le fichier électoral ba léegi donc effectivement mais soo defee sa calcul par rapport ak 6 pour cent wala ak 8 pour cent di nga xam à peu près euh, le le nombre d'électeurs yoo xam ne ñoo war a voter au niveau des élections mais ba léegi. kenn ci kujje gi xamul li am ci affaire parrainage difficulté bi mooy lan mooy mën nga dem wuti sa parrainage mais li ñu gis sur le terrain mooy y a beaucoup d'achat de conscience nit ñaa ngi jët jaay seen ay photocopie carte d'identité di ko jaayee deux mille francs mille francs dañ koy jaay seen photocopie carte d'identité te loolu day indi problème yu bëri parce que ki la jaay photocopie carte d'identité yu bëri la si yoon day day jël di jaay rek ku ñëw mu jaay la bosam Ce qui veut dire que tu peux te retrouver invalider sa, sa candidature sur la base de des doublons doublon chance la rek sa tur sa sa numéro su njëkkee génn nga njëkk a joxe say say say sa parrainage keneen ku ñëw dugal bosam su dëppook yow li nga say say bos rek bosam moom dañ dañuy dàq ay bosam xam nga loolu loolu loolu injustice la foofu équité amu fa loolu mooy problème essentiel u parrainage duñ ci sore waaye nag ñun am nañu yeneen option yoo xam ne xalaatoon nañ ko pour def ay filtrage au niveau du parrainage loolu moo ñuy may ñun yaakaar naa ne suñu tëggee suñu ay liste suñu parrainé ba pare ñun ñu am ay difficulté pour jàll loolu loolu jaaxaluñu deuxième question bi mooy ndax man dama am ay lien ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko Sénégal ku fi nekk ku ne am nga ak lien ak moom d'une façon ou d'une autre mais damay wax ne le jour mooy wax ci moom xam-xam laa doon waxee mais boobu man ak Ousmane Sonko xamante nañu parce que lépp nag lu may wax damay jiital dëkk nee naa Ousmane Sonko yàggul man je viens de des États-Unis démb laa ñibbi si dafa woon foofu tournée Ousmane Sonko biñ koy jàpp fekk na ñaari yoon laa mës a waxante ak moom. benn bi dama nekkoon en activité woo ko mu a ma colonel bëgguma nga may woowati parce que mun na la jural ay fitna kooku nit ku baax moo koy def bi ñu jógee ci loolu demuma télé Walfadjri dañ ma laaj Ousmane ni ñu ko jàppee ndax jaar na yoon man leen ñaari possibilité moo am su fekkee dañ ko jàpp mu dëppoog une décision administrative la police a droit de su fekkee dafa fekkoon mu nekk dans le cadre d'une manifestation ñu jàpp ko parce que tout simplement il y a une réquisition de l'autorité administrative su boobaa si dëpp loolu dëppoo na ak yoon su fekkee ñaar yooyu yëpp benn amu ci jàpp buñ ko jàpp c'est illégal te loolu xam-xam la loolu texte si ñoo ko wax ci loolu moo indi fitna am ba ma jóge fu ma jóge bi Sénégal amee problème Ousmane Sonko dellu dem. Euh, Ziguinchor waa Ziguinchor barricade këram dama jóge Séné dama jóge dakaar jël sama avion dem seeti ko mu nangul ma egg ci moom parce que boobu kenn mënul jot ci moom ma dem toog ak moom waxtaan ak moom lu may waxtaan ak moom nag duma ko wax fii mais damay leen xamal ne bokkuma Pastef te tey li may yootu mooy remplacer le président Macky Sall loolu man mënu ma ko xam question boobu Ousmane waa Pastef ngeen koy laaj. li ma mën a wax mooy Ousmane Sonko li may wax ak moom dëppoo na lu baree bare ak li may wax li ñuy wax li ñu doon waxtaanee ci loolu parce que doom naa këram mu dalal ma deux heures demi demie pendant deux demi soo waxee ak nit si soldat am nga looy jële ci moom te bu ma jógee ci moom. le 6 juin dama dem gis le président Macky Sall toog ak moom mu dalal ma këram pendant deux heures et ñu waxtaanee réew mi ma wax ko ci li ma xalaat te li ma xalaat lépp nag dëppook li réew mi bëgg ak li réew mi fu ñu jëmee réew mi donc man awma xej ak seen su ma président Macky Sall woon tey ne ma suba suba kaay liggéeyal réew mi damay liggéeyal réew mi mais nee naa damay li ma gëm mooy sama mouvement sama alliance bi dara du ma ko tax tas ko hmm. dara du tax ma sepp sama xalaat te pensée unique du ma ko nangu man li ma xalaat ak li ma gëm laay wax man soldat laa. mooy li ma xalaat ak li ma gëm laay wax. parrainage des élus man mun ma am parrainage des élus parce que mosuma nekk électeur mais mosoo gis aussi colonel bu jógee ci armée dem élection c' la première fois c' est une première. c' une première mais taxul na ñun xam nañu fu ñu jëm Jerry Rawlings bu Ghana man mooy moom mooy sama référence. donte xëy na dafa def coup d'état mais man après gagné na élection moom moo tax tey ñuy wax au Ghana la démocratie bu bu nit ñi di wax au Ghana Jerry Rawlings la te ñu bëri xamuñu ne Jerry Rawlings même Thomas Sankara bu ñuy wax Thomas Sankara était un adepte de Jerry Rawlings bu gana kooku la ñuy kooku mooy référence bi nga xam ne moo ñuy permettre ñu mën a wax ci affaire euh, li ngay laaj ay coup d'état moo am dans la sous-région gars yi jël pouvoir par les armes nu on est en ancien militaire mais nous voulons nous voulons prendre le pouvoir par les urnes. oui. et pas avec des armes ñun loolu la ñu gëm nañu wax ak askan wi jox leen suñu programme euh, loolu moo ñuy may ñu am li ñu bëgg mu indi le problème du système éducatif xëy na da ci deful attention mais junj naa ko mais mun naa la ko gën a yaata lal système éducatif bi mu nekk c'est le système Jules Ferry 1857 la fi Faidherbe bu teg système boo xam ne day noot suñu xel jëmale ñu ci lépp lu ñu am tubaab bi ñu nangu ko foqati ko yóbbu 1857 ba léegi système Jules Ferry bi mooy continuer Sénégal dëppoowut suñu ay ngëm-ngëm laïcité la ñu wax mais laïcité am na ay valeurs yi ci nekk ñu nangu valeurs yu laïcité yi ci nekk mais ñun bëgguñu loolu dañoo bëgg suñu éducation ñu baase ko si suñu ay valeurs personnelles ay valeurs morales du Sénégal loolu moo taxoon ma junj léegi le pourcentage ngëm ñi gëm Sénégal 93 pour cent de musulmans 6 pour cent de chrétiens on peut pour cent ci yeneen domaine waaw mais ñooñu nan la ñuy mën a jiital loo xam ne da leen yóbbu ci laïcité boo xam ne daf ñu yóbbu ci góor jigéen ñu war koo nangu. lan mooy yóbbu ñu war a nangu ñaari góor ana ana sëy ba pare ñu mën leen mën nangul ñu am ay ñu jël doom adopté loolu bokkul ak suñu ngëm-ngëm loolu du Sénégal dañoo bëgg a tëggaat suñu système éducatif jële fi école Jules Ferry teg fi benn école dëpp du boo xam ne dafa dëppoog suñu ay ngëm-ngëm te école Jules Ferry ba pare nag ñu war a aussi jàng si suñu langue nationale parce que suñu ñàkk jàng ci langue nationale daf ñuy perdre loo six années ñuy jàng français balaa ñuy commencé dañuy wax ne kaay leen ngeen dajale lii ak lii mathématique ak leneen ak leneen doomu tubaab bi tey day am bac ak 14 ans lan moo ko war a parce que dafa teel a commencé ci làkk bi mu ngi nàmp Sénégal dañoo war a nangu ne wolof moo fi gën a dëgër ñu def ko comme au Rwanda ki ñaar Rwanda boole ko français bi boole ko yeneen langues yi au niveau de certains terroirs mu mën a dox loolu mooy système bu ñu fi teg ñun fu ñu fi toogee. te suñ fi toogee aussi naka sénégalais yi nangu ñun Sénégal suñu discipline dafa des soldat nag fu mu toog discipline lay njëkk a wax nañu nangu delloo si waat suñu discipline ñun ñu discipliné waat suñu bopp mu commencé ko si njiit bi mu nekk un exemple li mu li mu diggee mu def ko li mu wax mu def ko nit ñi topp ko kuy digle sangu da nga sangu ba set yow d'abord système éducatif sénégalais xalaat nañ ci mun nañ ko gën a yaatal mais dañ lay wax rek ne na sa xel dal côté boobu su ma toogee fi def 40 ans ba pare ni dëkk bi amul sécurité boobu man sama bopp laa xes dëkk bi am na sécurité Casamance li fa am mooy guerre bi gën a yàgg tey ci àdduna bi 1981 ba léegi ñaata at la Ziguinchor c'est à 15 kilomètres de la Guinée-Bissau rebelles yi mosuñu jël Ziguinchor. lu dul bu ñuy door a commencé seen seen en 1981 rebelle yi jël benn ville bu ñuy bu capitale départementale bu ñu mën a wax rebelle yi mosuñu toog ci territoire sénégalais heure bu ñu fa toogee armée sénégalaise génnee na leen fa te ma bokk nag ci doon liggéey parce que man parachutiste la commando la oui. ñaari unité d'élite yooyu ci laa nekkoon parachutiste laa bu ma commencé lieutenant en 88 ba bu ma fay jógee en 2002 chef de corps mais commando laa parce que centre commando yu am Sénégal yëpp commandé naa ko donc sécurité am na Sénégal nañ ne ay événement am na mu jur loo xam ne bett na ñëpp mais lenn dama koy wax di ko bëralaat population bu jógee taxaw amul kenn kenn ku ko mën téye amul li ko waral du ñàkk sécurité moo tax kenn du ko mun def ndax police ak gendarmerie suñu leen dépassé armée mooy taxaw te armée du nangu mukk tiire ci kaw peuple donc képp kuy teg fitna population bi yaakaar naa ne dina am fu muy toll ak réew bu mu mënti doon armée dina jël ay responsabilités oui. jëppoowul ne armée dafa war a def coup loolu nee naa leen du suñu xalaat Sénégal dañuy ñaan yàlla bu fi coup am li ñaan yàlla mooy ñun en tant que pour la première fois militaire bu à traité jiite alliance ñëw nangu réew mi teg ko ci ay yoon loolu mooy suñu sabab.